bés baa ngi noonu bésu rasulillahi si ndigalu kan sëriñ Muniru Njëgën xalifa alaji amad moo joxe ndigal si gàmmu mbuur gàmmu gi mi ngi yàgg ay ati ati ati at moom si boppam déplacé wu ànd ak nag rakam ñu tedd ja bay as Njëgën moo koy présidé guddi gi mu gàmmu-gàmmu gi ñaanal taalibe a bëgg mooy xartu waa mbuur moom si boppam mooy teeru nag ay bokkam teeru ay ay càmmiñam ci biir loolu nag ak borom kër bu baax bi Papa Talla Gueye nga xam gàmm gi moo ko moom de gàmm gi nga xamante ni mu ni gàmm gii mooy gàmm alaaji amar njigéen mooy amaru njigéen yàlla yàlla yokku lépp tataas ñu si barkeem ñu xëy dañuy wàcce kaamil ñaanal nag ñi nga xamante tàmbale si aadama awa néew julit ba si yàlla njëkk moom ba bi si mujjee moom dinañ koy wàcce ay limi limi kaamil ñaanal leen yàlla yàlla jéggal leen ngoon bi bu jotee nag si la ñu teeru nag ki nga xam moo yor pouvoir central Sayer Ndaw de préfet département premier magistrat ville de Mbour Aladji Fallou Silla grand fauteur de l'islam Aladji Omar Sy ak bëgg yonti Yalla Mohamed, daayira Sop Seydouna Mohamed yi association sop Seydina Mohamed waaj Sen seen bésa takku liggéey Adja Fassise mbootaayu Nogoy Ndiaye ana sop Mohamed, bi kañ la le 17 fan la fi si ban quartier lanki tous surtout que Sëñ Moustapha Bassirou Mbacké ah gam gi nak amul Tijaan amul Khadir amul Layan amul Layen, amul Ñaseen di nga dégg nak ñëw nak gi ak njaboot gi ñu naan laa ilaha illallah basal karaw bopp yëpp taxaw ndax nag baatu laa ilaha illallah mooy dundal ruu yi wasalaamualeykum wa rahmatullah tis woo nag képp ku ma bokkal alaaji Amad Baro képp ku ma bokkal famille astataal képp ku ma bokkal koñ bi ndax koñ beeg ñii ñoo yem ci bu ba léegi ñu ngi jaabante maa ngi woo waa kër maam rawaan ngom sama borom kër foofu la soso maa woo famille Abdou Guèye maa woo ñoom ñëpp maa ngi am yaakaar ne dina ñëw bokk ak ñun bi. di woo gendarmerie yëpp nag ndax lii bañ ko dalee di def ak léegi dafa yàgg. ñu ngi sant suñu dëkkandoo yi ñu dëkkal muy waa waa relais gii ba ñu dalee di sumb ba léegi lu ñu sumb ñu bàyyi seen kër wàcc seeni lal dalal suñuy gan jàppale ñu. képp kuy borom tëni nag na nga xam ni ci bis bi nga bokk ñu ngi lay woo. maa ngi woo nag képp ku nekk Europe maa ngi woo sama xarit yi sama sœur yi sama frère yi. sama am di jàmm yi ñëpp ku ma xàmmee ci vidéo bi maa ngi lay woo ci bis boobu di le 17 février au quartier relais maa ngi woo tamit suñu frère du monsieur Gane Ngom maa ngi woo la Larion du Bawol ajaratu ay dëmbooj famille aji yaasin njegéen aja ndey faatu njegéen sama yaayu bopp famille Seynabu njegéen Xadi njegéen di gërëm nag Cheikh Ahmed Sall njegéen di ñaan yàlla dëgëral ko yàlla may ko kàttan yàlla jàppale ko ba mu yegg ci bésam beeg jàmm te yàlla defal ko ci ndam di woo famille Adja yaay ay dara ci Medina maa ngi woo sama nijaay euh, immeuble Diez nijaay Ahmed Cissé Ndiégène maa ngi woo Serigne Gora Seye di sama nitu bopp di borom 99 noo de jëyi waa Alliance Couture Adjara euh, Fari présidente du daayira Moutahabina Fillahi ajaratu Astou Sène ci Paris sama yaay bu baax boobu maa ngi woo eh, ñiy dem eh, agence de voyage yi dem màkk yëpp ñi nga xam ne maa ngi ñoom a bokk liggéey bi te Tata Binta Tandian Tata Maguette Mbengue ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ñu ñëw ci sama bis bi Tata Adoulette Sy asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina maolana muhammadin alayhi salaatu wasalaam ñu di ci woo nag sunu mbokki doomi soxna yëpp kër yu mag yëpp bàyyiwuma waa Cenaba nga xamante bi ne Serigne Gora Seck fàttuma alaaji Cheikh Kandji di doomu Serigne Habib Kandji ca Diourbel Abdou Aziz Kébé imam Jabel mi nga xamante bi ne ñoom ñooy délégué général ci pèlerinage Thierno Mountaga Tall itam nga xam ne tabarkalla Thierno Bachir ci ndigalam lañ ko defee ñu ngi koy woo di woo fama omar yéen yëpp tabarkallaaw ci bis bi fàttewuma itam alaaji Idrissa Gaye ak njabootu sunu baay Alaaji Xalifa Gay di ci woowi tamit daayira sopp xaaji Munir maanaam mbul kayel ak xinin kiren bàyyi wuñu kër Saara Badiane kër dem Ngoy Jaxate ak fépp foo xamante bi ne taalibe kër gi nekk fi rek ñu ngi leen di woo di leen yëgal bis bi nga xamante bi ne mooy bis bi di ci yëgal tamit di ko yëgal suma rakk Serigne Omar Njegéen bu kalimatul xaq tabaarakallaahu mu xam ne bésu boppam la mook njabootam yëpp ñoo ngi leen di woo ci bis bi di ci woow tam waa safinatul fuqara bu El Hadji Mortala di ci woow tam tabaarakallaahu ki nga xam ne Serigne Cissé mu zakiri na fàttewuñu tamit Thierno Aboubacry Diallo ak waa Dakar yëpp ñu ngi leen ci woo itam maire Somone Bokar Sadj moom moom mbir mi mook tabaarakallaahu waa Caajeen yëpp ak waa Njengeen waa Jaxate ñëpp ñu ngi leen ci woo fàttewuñu Baye Mbay Jaxate moom itam di ci woo tamit tabaarakallaahu Abdou Fall doon sunu mag ak Zeynabu Njegeen ñu ngi leen di woo Mamadou Diop Decroix yi tamit ñu ngi koy woo ci bis bi ndax bis bi bisam la Cheikh Issa Sall itam di sunu wóllëre ñu ngi koy yëgal bis bi soxna Younus Mbakke di sët ci maam Serigne Touba radiyallaahu anhu mariste di ko yëgal itam mboolem ñi ma bokkal Alaaji Amadou Baro sama baayu bopp yi kër maam Ousmane Njegeen baayu ma kër maam Abdou Aziz Njegeen kër maam Abdou Wahab Njëgën fàttewuma kër maam Cheikh Oumar Njëgën fàttewuma tamit képp koo xam ne ni damaa bokk ak moom Serigne Muniru ñu ngi lay woo ci mbir mi di ci wooyit samay soxnay boppit tabaarakallaahu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu le set fan fii Mbuur fan quartier Lankitus si relais fi lañ koy defee si waa kër Serigne ba Bassirou Mbacké kon day yaakaar jàpp naa ni amul waa kër Xaadimu Rasuul waa kër ma Amadou Ndaa Seck waa kër Seydi Hadji Malick waa kër Alaaji Amadou Bari Ndiaye ne ko seen maam de woote woon ba séq ñëpp jàmm noonu njaboot gi noonu ko séq ñëpp jàmm yàlla si yàlla yóbbu jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu